papa xaafoo ci feneen ku jëf lu baax boppam loolu ma nga ca suratul jaasiya laaya ba tolloog fukk ak amay bam ne man amila saalihan fali nafsi laa yu mel noonu nag te ay ci bunt bi yu bare bare lañ te wa amal fa kasiratun aji bari lañ jiddan فهي يوم غير من حاصرة دين أجي تكو فلا ذكر دنين تدو طرفا أقوال من هاتي يوم الأول بجك حن أبي الزرين جند دبني جنادتا رضي الله عنه قال قلت وخوان ناني يا رسول الله يوم يلدي أي الأعمال أنا ينتجه أفضل يوغن xaala mu ne ma al imaanu gëm billahi ci yàlla wal jihaad ak jihaad fi sabili ci ay yoonam qultu ma ne ko ayur riqaabi ana ban ci baat yi ban ban ci jaam yi maanaam yi xewoon ci leen di mom afdalu moo gën ci ëpp tuyaaba an fasuha gën jaa sel seen gën jaa gànjaru seen inda ahliha fa seeni borom wa aksaruha te gën jaa bari ci ñoom tamoon ci njëkk kon dama ne ko fa in lam af xal ndéem defuma nag loolu xaala ne ma toyinu da nga dimbali saani xan aji jëf aw tas nax wala ngay jëf li ax raqa ñeel aji cuune ku tawee jëf xultu ma ne ko yaa rasulallahi ara wax ma rek nag in baxuftu ndéem doye dinaa an baxdil xamali walis lenn jëf xaala mu ne ma takku fa da ngay fekk te kuffu charraka saw ay anin naa si walis nit ñi fa innaha naka moom sadaqatu sadax la min ko ci yow ala nafsika ci sa bopp ala nafsika muttafaqun alayhi hadis boobu Buxaari ak Muslim tase nañ ca moom nag Abu Dar mooy dàkkintalam Jundub ibnu Junaada mooy tur moom moo nekk li addis boobu dane moom ci boppam moo wax ne yonante bi ne ko jëf yi du ci gën ne mu ne ma gëm yàlla mooy ci gën daal cee teg nag jihaad ci yoonu yàlla ma ne ko jaam yi nga xam ne ñun di moom ku ci bëgg tuyaaba jaam bu ci ëpp tuyaaba mu ne xanaa ba ci gën a soo ko doon jaay mu ëpp njëg soo dee goreel goreel boobu xamal ne noonu la tuyaabaam di bare mooy noonu lay ëpp tuyaaba ñu melul ne moom ma ne ko su fekkee ne nag defuma loolu mel ne awma ab jaam mu mën a goreel di ci wut tuyaaba mu ne ma da fekk kuy jëf nga dimbali ko ci lu baax la muy def mbaa nga fekk koo xam ne bëgg naa jëf waaye mënta jëf nga jëfal ko man ngaa fekk kuy def lu baax nga dimbali ko ca man ngaa fekk ku tële ku cuune lam bëgg a def mënu ko nga defal ko ko loolu lépp lu bari bari tuyaaba la ne mu ne ko waaw su ma demee dem nag ba daanaka jenn jenn jëf mënatuma ko maa defal kenn lu baax itam mu ne ma su boobaa dangay ngay fexe ba téye saw ay dangay fexe ba doo lor kenn kenn ci nit ñi ndax téye sa bopp ba loroo kenn kenn foofu bi nag loolu ciy bindal tuyaabay saraxe nit ñi moom boo mënta jariñ it fexeel ba bu leen lor rek boo fexee ba téye saw ay bañ lor kenn kenn rek yàlla yàlla fay tuyaaba ci téye nga téye saw ay ba loroo kenn kenn as saani xujooju bis saadi المهملة هذا هو المشهور وروي نتلي فمك دائها أجي بالمعجمة أي دا بياع برامك سانكو من فقر تنك أو عيال ولا أين جبوت ونحن ذلك أكل من اللولو والأخرق الذي يمويكن خمني لا يدخل دخرين ما لنك خمني يحاول دي ساكو معنام دي جيم فعله أكدهم mu ne loo nga séen muy tooyinu saani an def ko saat boo gën a siiw ci yaxi addis yi am na nett bu tomb nag def bàyyi xan aji sànku mel ne kon dangay fekk ku ñàkk mbaa ku bari ak njaboot te tëlëje ak mel ne yooyu nga dimbali ko waaye max naa mi du tax mu soree baatub ak raq bale nag moom lay wax naa mooy koo xam ne dafa cuune lam bëgg a def mënu ko def bu baax الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يصبح دنخي على كل سلامة ور بيب تنغو ولا ور بيب يخ من أحدكم تكن صدقة سرح فكل تسبيحة بب سبال صدقة سرح وكل تحميلة بب سنتيال لك الحمد لله صدقة سرح وكل تهليلة بب لا إله إلا الله صدقة سرح وكل تكبيرة بب كبر صدقة سرح وأمر دجل بالمعروف تنجك صدقة سرح الله ونهي تري عن المنكر والسلوبا صدقة سرخ الله ويجي سيطنا دوي من ذلك تلولي رك حتى نياري رك يركعه ما يدن للجلي من الضحى يور يور رواه مسلم أبو الدرنك موي صحابي بيغا خمني ني مو جيلي سي انتي موني دوم ادم بني بوخي ني اي تيم غوم تولو رك ورنا فخيبا saraxe sarax yu taw nona ndegam nak ala yombiwut wut nona tayit du ñëpp ko jekko nona mu ne yi mën wecc sarax da bari ak ko wax subhanallahi rek sabbal yàlla rek taxaw na taxawayu saraxe sant yàlla yit niki alhamdullilah taxaw na taxawayu saraxe la ilaha illallah ak allah akbar lu ci nekk rek taxaw na taxawaayu saraxe digle lu baax taxaw na taxawaayu saraxe aaye safaan ba muy lu bon taxaw na taxawaayu saraxe mu ne nag julli ñaar ràkk ci yor yor dal nay wecci yooyu yëpp yëpp yëpp loolu moo tax ñu wax ne julli yor yor lu màgg màgg la ndax bu ne doomi aadama ni ay tengoom toll ci bariwaay war na bés bu ne mu fexe ba def ay tuyaaba yu tol noonu ci saraxe du jàllee ne yooyu yëpp nag bu jullee ñaar rakka ci yor yor rek mel na ne def na lépp lépp dara rawu ko ca kon julli yor yor lu ñu fonk lool la asulaama bi dammi siini al muhmalati wa taxfifil laami wa fathil miimi al mafsilu mooy ak tengo asulaama jooju te baat bu xaw a jafe ci prix ngay mas siw soosi maas ak lonk lam gi nga maas ci ko wala biji ko mim nga xamne mo top ci biji ga nga fata ko momit te biji ko muy as mu loo xam ne ab tengo lay firi ak talisu hadisu ñettel bi anhu patay jele ci abu dhar qaala قال sallallahu صلى الله عليه وآله دار لفنا وونيفنا علي تي مان اعمال امتي جفي سما خيري حسنها اجرفت سين وسيئها اجنياو سين فوجدت ما فك في محاسن اعمالها جي رفت رفت سين جف الاذى مرجع يماط ديفي كوديندي عن الطريق والسيوان ووجدت ما فك في مساوئ اعمالها ci ñaawte fi ay jëfa moom sama xeet wi an nuxaaxatu xaaxtandikoo takkoonu muy nekk fil masjid ci jàkka ja laa tudd fanu def ko suul muslim hadisu ñetteel bi muslim moo netli way waaye abu dar moo ko jële ci yonante bi mu ne yonante bi dane woon dañ maa wan jëf yi nga xam ne la sama xeet wi di jëf ba gis leen am ca yu rafet am ca yu ñaaw bokk na nag ca ya ca rafet fekk lu mën a lor doomi aadama ci yoon wi nga toppale ko ba kenn bañ caa loru loolu nañ xam ne jëf ji yiw la ju baax a baax bokk na nag ci yu bon yaa bon te mata moyu mooy fekk aw xaaxtandiku ca biir jàkka ja nga bañ koo sóol kon jàkka ni ko war a ormal ba deesu fa xaaxtandiku deesu fa ñandu tayit it nag ku fekk ñu ñandu fa mbaa ñu xaaxtandiku fa dalal li gaaw suul ko arrabihu anhu su ñeenteel ba tey mi ngi bàyyikoo ci abu dar, an naasa nak ay nit qaalu waxoon nañu ne yaa rasulallahi yow yonante yàlla bi dahaba demee na ahlu ñooñ koom-koom ya bil ujoori ca yool ya muy tuyaaba ya yu salluuna danañu julli kama nu salli naka nuy jullee waya soomoona te ñuy woor kama na soomu naka nuy woore waya tasaddaqoona te ñuy saraxe bi fudooli amwaalihim ci ndasiiti seeni alal maanaam buñ fajee seeni soxla lay des ci seeni alal mooy bi amwalihim alfadilati an kifayatihim qaala awalaysa qad jaala ndax defut allahu yàlla lakum ñeen leen maa loo xam ne tasaddaqoona da ngeen saraxee bi ci moom te tasaddaqoona moo doon cosaan ñu dagg fi genn taa inna bi kulli tasbihatin naka nekk na ci bépp sabaan sadaqatan sarax wa kulli takbiratin naka nekk na ci bépp kàbbar sadaqatan wa kulli taxmidatin naka nekk na ci bépp sant yàlla sadaqatan wa kulli tahlilatin nekk na ci bépp laa ilaha illallah ba tey sadaqatan wa amrun digle it bil maaruf ci njekk sadaqatun sarax la wa nahyun tere anil munkari walis lu bon sadaqatun sarax la wa fi dadaxi ahadikum nekk na ci sawukaayu kenn ci yéen sadaqatun sarax xaaloo ñu wax ko ne ko yaa rasulallahi ayati ndax dana dikke ahaduna kenn ci ñun shahwatahu bànnee xam ba wa yakuunu tey nekk lawoo di ko ñeel fiihaa ca moom ajrun ab yool xaala mu ne ara aytum wax leen ma rek law wa baxaxaa doonte tegoon na bànneex ba fii xaraamin ci aji araam akaana ndax doon na nekk yi di ko war wisrun bakkaar fa kazalika naka noonee ida wadaxaha ndéem teg na ko fil xalaal yi ci aji lew kaana ko nekk lexoo di ko ñeel ajrul ab yool rawaahu muslim abu dar nag ba tey mooy ko ko jële ca yonante ba mu ne ay nit dañoo ñëw ci yonent bi ne ko yow ki yàlla yónni ñi am alal ju bari day yóbbu nañ tuyaaba ya wàccu nu raw nañu nu ci di am tuyaaba rekk di wéy te nun nu ñàkk tuyaaba rekk di wéy ñu ne ko ndax bun julli ñuy julli bun dee woor ñoom itam ñi woor ba noppi nag dañoo bari wërsëg buñ fajee seen soxla bam mu des ñu wëlbatiku defaat ci ci yoonu yàlla am ci tuyaaba joo xam ne nun mën nu ko am yonente bi ne leen ah du rek kat alal ci la ñuy amee tuyaaba ndax benn sàbbaal bu ne wecc na sarax benn tàbbar bu ne wecc na sarax benn sant yàlla bu ne wecc na sarax benn laa ilaha illallah bu ne wecc na sarax digle lu baax wecc na sarax aaye lu bon wecc na sarax kenn ci yéen sax bu joteeg soxnaam mbaa jamono yi jébbéer amee maanaam jaam bu jigéen bu joteeg jaam bu jigéenam sax jote googa ñu bindal ko ca tuyaabay saraxe ñu ne ko ah loolu moom kenn ci nun day dem def bànneex boobu te muy joteeg soxnaam ba ab jëbéeram ba noppi ñu ko ciy bindal tuyaaba mu ne leen ndax su jote woon ak ku ko araam ni ki njaaloo ndax duñ ko ci bindal bàkkaar mel ne kon tont li mooy axakay daañu ko ci bindal bàkkaar mu ne leen nag noonu la mel ndegam su fajoon bànnee ci lu araam ñu bindal ko ci bàkkaar kon su fajee soxlaa muy bànnee boobu ci lu ko lewit ñu bindal ko ca tuyaaba ak duusóoru nag bistaayi al mutallasati al amwaalu moo di alal ya waaxiduhaa dasrun dahaba ahlu dusóori ji nga gisoon ci addis bi baat boobu ad dusóor daa yombuta firi lool moo tax nag mu firil la ko ne la ay alal lay firi te ad dusóor jam xu taksiir la mufratam mooy ad dasru alxaamisu anhu qaala qaala waxoon na lii ñeel ma an nabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa taxqiranna bul xeeb minal maarof ci njekk chey an dara walaw an talqaa ak doonte da ngay taseeg axaaka sa mbokk bi wajhin ci kanam talixin guy aji boy mooy kanam gu tàlli rawaahu muslim bi wajhin talixin mooy ay bi wajhin ضاحك مستبشر وذلك لما فيه من إيناس الأخ ودفع الإيحاش عنه وجبر قاتله وبذلك يحصل التآلف المطلوب بين المؤمنين بتي أديس جروميل بي أبو ذر mooy ki ko déggee ci yonante bi muslim nettali ko ci téerib addisam abu dhar ne yonante bi damaa waxoon ne ma lu baax moom bul ci xeeb dara loo ca mën a def mbaa loo ci mën a defal sa mbokkum jullit rek bul ko xeeb doonte sax dangay taseeg sa mbokkum jullit te wan ko kanam gu tàlli di ree di bëgg te ngir yàlla doo nga tax loolu tuyaaba ju rëy la te mbir mu tuuti waaye bul ko xeeb nga xam nga boo taxee sa mbokkum jullit wan ko kanam gu tàlli ak ndëgte te daal di yaatu xam ne yow mi xajoo nga ko nëbbaloo ko wenn ay su ko defee loolu day tax jullit ñi gën a tàppoo gën a doon benn assaadisu an abi hurayrata radiallahu anhu qaala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة بيب تنغو من الناس تنيني عليه ورنة موم صدقة سرخة كل يوم انت بيب بس تطلوه ببدن فنك فيه تموم السمس جنتبه تعجلو دنگا دفره بين اثنين بين الاثنين ديگنت نيارنا صدقة كم سرخ الله wa tuinu da nga dimbali arrajula waaja fii daabatihi ci daabaam fa taxmiluhu te nga koy yen waaye te nga koy waral alayha ci kaw daaba ja aw tarfam wala nga yëkkati lahoo ñeel ko alayha ci kaw daaba ja mataaxaxoo bagaasam moom it sadaqatun sarax la wal kalimatu baat ba ak tayyibatu bay aji teey sadaqatun sarax la wa bi kulli خطوة ولا وبكل خطوة نك نتي بيب جيكو تمشيها باب دام كو دوخ الى الصلاه جوم تي جولي صدقه صرخ وتميت دنا ديندي الاذى لرجا عن الطريق والسيون صدقه صرخ لا حديث بوبو متفق عليه لا مانام بخاري ومسلم دنجا تاسي ابو هريره نك مو نيت لي بي موم دا واخني yonent bi daa waxoon ne doomi aadama yi day kenn ku ci ne lu tolloog la am ci ay tengo maanaam ay yax na ay yaxam toll na yaxi tengoom toll war na bis bu ne mu fexe ba am tuyaaba yu toll noona mooy def lu baax digganteem ak boroomam lu toll noona dal koy misaale ne benn yax bu nekk ci yaramam bu ne war na mu def ab sarax bu tollok mom nga xamne kon na yahya tollu ci yaramam rek bis bi dana ci def ay sarax yu toll nonu ma dana ci def ay tuyaba yu bare nonu ndegam nag alal mom du ñepp ko am mu ne ñaar ño xamne ne seen diggante daa naqare woon wecc na saraxé dimbali saway sa mbokum julit mu bëgg war kaw daaba nga dimbali ko waral ko ca ba nga dimbali ko mu war day daal di wecci saraxe yëkkati bagaasam tegal ko ci kaw kaw la mu bëgg a war day daal di wecci saraxe baat bu tey boo wax moo xam day laa ilaaha illallah moo xam day beneen walla sax wax ju rafet rekk joo wax jëmale ci sa mbokkum jullit lépp day wecci saraxe bépp jéego boo soqi jëm ci jàkka ja wecc na saraxe fekk lu mën a lor julit ñi ci yoon wi nga dindi ko ba du loru kenn wecc na saraxe ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه أنك لبرمودي قلق bindeef na kul insani bepp nit min bani adama ci doomi adama yi xalaa sittina ci juróom benn fukk wa salaasi mafsilin ak ñetti téeméeri tengo fa man kabbara ku kabbara allah yàlla wa hamida te mu sant allah yàlla wa halala te mu tahlil allah yàlla wa sabbaha te mu sabbal allah yàlla wa astaghfara te mu jégglu allah yàlla وحصل تم بر موي تم توبالي حجرا او دج ان طريق الناس مول في يولو نيت او شوكة ولا اك او عظما ولا ابيخ عن طريق الناس مول في يولو نيت او امر ولا مديك لبي معروف تي نيك او نها ولا متري عن منكر ولا سلو بون عدد 60 لنيت جيروم بن فوكيه و 300 ak ñetti téeméer ya fa innahu naka moom yum si dana gontu yow ma isin ci bis boobee waxad zax saxa te fekk na soril na naf saxoo boppam anin naari walif sawara am na nett li boo xam ne muslim moom moo ko jagoo boobu nett li nag soxnaa aysa moo jële ci yonante bi mu ne doomi aadama bu ne yàlla def na ci moom ci ay yax lu tolloog ñetti téeméer ak juróom-benn fukk maanaam doomi aadama bu ne daal li yàlla def ci moom ci ay tengo toll na ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk mu ne nag bis bu ne bu doomi aadama xëyee na fexe rek ba def lu toll noonu ci ay tuyaaba mu daal di wax nag yu bari yoo xam ne loo ci def rek mu daal doon tuyaaba niki allahu akbar ak alhamdulillah ak la ilaha illallah ak subhanallah ak jéglu yàlla niki astaghfirullah yooyu yëpp bokk na ci xeeti tuyaaba yi doomu aadama mën a fàggu lu bare bari bis bu ne ak fekk ci yoon wi aw doj mbaab dég mbaab yax mën na gaañ kenn mu toppale ko ak digle lu baax ak aaye lu bon yépp nee na mën na ko bari la baril ba def tuyaaba yu toll ne ni ay tengoom toll muy ñetti téeméer ak juróom fukk bis ba mu defee loolee du ca ngoon gaa na xam ne bokk na ci ñi yàlla sori dal sawara assaabihu أبو هريرة بطي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا كخي إلى المسجد جام تي جاكا أو راح ولا مغونت أعد كون خرو الله يالا له نيالكو في الجنة تي أجنا نزلا أك له كلما غدا سايخي أو راح ولا مغونت متفق عليه النزل مو القوت أبدندو war risque ak wërsëg wama ak la nga xam ne yu xëy def na ko waajal lit day fi ñel gan Abu Hurayra ne yonent bi nee na woon ku xëy jëm ci jàkka ja mbaa mu gontu jëm ci jàkka ja la ko ci yàllay faye mooy waajalal ko ak nganale gu neex a neex foofee ci àjjana kon daa mel rek saa jaam du jógee jëm ci jàkka ja moo xam ci xëy la moo xam ci ngont la walla sax ci guddi yàlla daal koy waajalal ak nganale gum fonk fonk foofee ci àjjana nag la ko koy waajale di ko ko nege ak taaminu ba tey an hu jële ci abu hurayra qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Yani nisa al muslimati yen jigeni julit ñi la taxqiran na bu xeb mukk jaaratun dekkando bu jigen li jaarati ha ñeel dekkando bu jigen ba wala firsina shatin ak donte weexu ab gàtt la muttafaqun alayhi abu hurayra ne bi neena won yeen jigéen ñi di ay jullit maa ngi leen dénk kenn ku ne ci yéen lu mën a defal moroomam ci lu baax bu mu ko xeeb doonte sax we bu gàtt lay doon xam nga ab gàtt weewa ci boppam daanaka du am dara ci lu ñu jëfandikoo waaw weewa ci boppam xam nga ab tànk moom ndawal la waaye nag weewa ci boppam day wow koŋ rek mune nak te tey mbir ñak solo waye kenn ci yéen jullit ñu jigen ñi bu mu xébal moromam bu mu xébal moromam lu tol nonu ci aw yu nako def te yàlla tax rek mom la saraa di sarana la tamtani jaratun min alsadaqati walhadiyati li jaaratiha li istiqlaaliha wa ihtiqaariha الموجودة عندها بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفرس الشاة وهو خير من الأدم قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال الجوهري الفرسن من البعير كالحافر من الدابة الجوهري دنا الفرسن فرسن من البعير في قليم كالحافر من ملنك وح من الدابة في دابة نيجي وخي وهو دابة نان لنجي وخي الفرسين وتمي وح في قليم فانا مومي ابغات صحلك فدلون ولو فرسين شاتين قال ما تحمتكنا ورب مستوعيرا أمان أبو أبليفكو في الشاتي أبغات الفرسين ci cosaan ci albaaxir gëléem lañ koy jëmale waaye nag xëy nañu àbbal ko jëmale ko ci ab gàtt muy lu ca wàll si waaye cosaan wu ca woon attention anhu ba tey mi ngi dellu ci abu hurayra an nabii sallallahu alayhi wa sallam qaala al imaanu gëm nga dëbbahun ab dog la wa sabxoona juróom-ñaar fukk aw bidhun wala nga ne ab dog la wala ñuy wax quelque waxoon ne moo tàmbalee ñett jëm juróom-ñeent wa sittuuna ak benn fukk wa sittuuna chion batan ci ay bàngaas fa afdaluha gën ji seen xawlu laa ilaha illallahu mooy wax laa ilaha illallah wa addnaaha gën jaa suufe seen imaatatul aza mooy dindi lorja anit tariqi walis yoon wa wal xayaawu kersa shubatun bàngaas la minal imaani ci gëm muttafaqun alayhi muy addis boobu buxaari ak muslim dañ caa bokk tase abu hurayra ne yonante bi dane woon gëm yàlla mees na koo def ay xaaj yu mat juróom-ñaar fukk ak nàngam wala juróom benn fukk ak nangam maanaam gëm yàlla dañ koy fas ci xol waaye dañ koy feeñal ci jëfi cër yi mu ne nag jëfi cër yi bari na lool ba des na ko wàññi ba ci juróom-ñaar fukk ak nangam muy nag moom yonente bi gëm yàlla ak jëfe yi ca mën a soqikoo su baree noonu kon lañ xam ne la ca gën mooy wax laa ilaha illa allah la ca féeti suuf nag mooy fekk ca yoon wa lu mën a lor ab julit nga toppale ko ba bañ a lor kenn kersa itam kat mooy rus lépp loo xam ne yàlla bëggu ko bokk na ci bànqaasi gëm yi maanaam bokk na ci yu baax yooyu ñu doon wàññi te ñu mat juróom-ñaar fukk nangam ak juróom-benn fukk ak nangam ci ni koku sikki saka momi don netali al hashiru anhu jele ci sahaba ben wess won batay muy abu hurayra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال